asalaamaaleykum jigéeni Sénégal seen xarit a ngi leen nuyu fi mu leen daa nuyoo saa su ne ci marché yi heure ba jotati na waxtu ba jotati na ñu leen nuyu fépp fu waay toog ci àddina di ñu seetaan ñoo ngi lay nuyu di la wax asalaamaaleykum bés na kon nag ni ñu ko defee saa su dañuy dugg ci biir marché bi rek xool ci tey lan lañ lan lañ leen di waxtaanee ma xool ah. yaakaar naa karoot la ñuy jël xoolal leen lan mooy njëriñu karoot ak lan ak lan lañu ci mën a def xam nga xale yi dañoo jonge te ko pooj lu ne def si lu ne côté boo kupp rek ñu fay fa ca des libaas ñu dem marché te ñëw yaay booy nuy naa la. fay naa la sama nenne. naka marché bi. ah ngi nii sant yàlla yonent bi rek. naaj bi tàng na de. waaw waaw nooy def. waaye sant yàlla rek. sant yàlla kay. carotte de laa bëgg. carotte ñaata nga bëgg. carotte bi est-ce cher na yaay. seeroon na de waaye mu ngi léegi. Hmm. fi ne kilo ñaata la. kilo bi am na 300 am na 400. ah dañuy waxaale rek ba juboo fii carotte fan lay jógee dañ ko importe wala fii dañ ko béyee. bi fii lañ ko béyee de Mboro. jaay ma ci liibar. ma jaay la ñaata nga ma koy jaayee. yaay sama xarit. su ma toggee ginaar lépp laa may ndax sama yaay. carotte bi soo ma ko jaayee ba pare doo ma ko daggal. ma daggal la ñu koy dagg di ko def macédoine wala nga dagg korondel wala noo ko bëggee rek. ki da mën na ko jënd fay leen ngeen jaay ngeen daggatel ko wala. waaw bu la neexee. naka naka ngeen koy daggee par benn wala par kilo. par benn loo ci bëgg rek ñu jaay la. Ah, ma daggal rek gàncax la gu xeetoo ak li ñoo dippee apiacé ñu di kaa jëfandikoo comme légume garab gi mën naa toll ci 30 xob yi dañoo féete kaw carotte yi nekk ci biir suuf karoot fu ne nag lañ kaa gis ci biir Europe Asie centrale ak occidentale ak it Afrique du Nord ci ay xeet yu bare te wuute ni couleur bi dafa faral di orange waaye am na karoot yu weex yu jaune yu violet wala sax yu xonq karoot am na vitamine A b K B1 B2 vitamine C E am na itam fer phosphore ak potassium. mën nan kaa lekk nag su ñorul ci lay ëppee vitamine def ko salaat ju wala ñu togg ko ci soupe à la wala sax purée mu baax ci bébé yi lool. ñi régime bëgg yemale li ñoo lekk mën nañu nag bu ñu xiifee yéey benn carotte ndaxte dana dindi xiif te du maye yaram. karoot boo gis mu sax ay reen nag taxu ko bees noonu ne carotte bu bees xob yi dañ ciy ne waaye boo ko jëndee buddil xob yi gaaw dugal ci mbuus bënnat ko denc ko ci frigo bi ci diirub loo xam ne du romb benn ayubés ci wàllu feem carotte euh, kenn du ko xolli mën nañ ko gratter rek rawatina su beesee ndax der bi dana oyof lool loolu nag dana tax vitamine yi ñu mën ka mucc ngir rekk jëriñoo ko rawatina vitamine yi leeral bët ci beneen fànn jigéen ñi nga xam ne nag dañoo bëgg seen biir tàpp mën nañuy faral saa suñu xëyee laata ñoo def dara seen biir ñu naan benn veeru jus de carotte. Ah, liñ ci mën a def moom bari na dañ ciy togg ceeb togg ci yàpp soo defaree sa palaat ba mu baax nga gratter ko ba mu rafet. ba mu neex daal nga def si say safal bu la neexee bu la neexee nga def ko noonu baax na si régime baax na ci yëpp daal waaw te suuf carotte bu Sénégal bi moom. carotte bi ñu ngi koy wax carotte tëngéej. ban njëriñ la carotte am. carotte moom baax na moom ndax day leeral ay bët. waaw baax na si bët da koy leeral. carotte mën naa la see toggal ceebu jën bu neex mën naa la si defal jus tamit. jus de carotte. xanaa boo ko xollee ba mu set nga raxas ba mu set am na machine am da ko. ba nga xamante nekk na ndox boo xam ne bu nekkee ndox léegi ya nga jël yaay seet ah, sa su nga def ci tuuti su fekkee am nga suukar am na karo yoo xam ne day am suukar am na yoo xam ne sa suukar léegi nga jël sa tuuti suukar wala suukar wane nga def ko ci nga boole ci am na benn produit bi jaay fii ci pharmacie ci épicerie bi fii nga boole ko ci nga def sa frigo ba mu sedd. nga ni fekk booba defal nga sa para saraat fur wi. defal nga sa salaat pour bi defal sa yëpp yoo war a def daal def sa ordre bi boo paree teg boo amee sa sëriñ bu baa nga jox ko ko. waaw xeli ko suñ pàppa jeex na jeex na <laughs> kon na gaa yi ba suba jàmm ci leneen incha allah. rubrique boo xamante ne bis bu nekk euh, danañ ko am fi ci 2STV ci Good Morning mooy maanaam le marché d'Awa nga xamante ne dañuy dem xool li ci marché bi ak euh, ndugg yu am solo yëpp yi nga xam ne jigéen ñi dañu koy soxla avant le clip quiz